naka fecc bi. waaw ñu ngi ci kawam de. est am na xaalis Pape Moussa dëggantaan. dafa bari xaalis. naa Youssou Ndour yow moom mu ngi lay. waaw Youssou Ndour kay du yoral kenn dara macha allah. léegi na nga gisee musique bi instant bi nu mu toll nii. waaw mais mi ngi dem rek. musique moom moox lépp a yam moox bi bépp liggéey am na ñu koy teg ci yoon am na ñu ko dul teg ci yoon. te loolay àdduna. chinoise yi gën nañ leen gis. non ñu ngi fi ñoom chaque anne la ñu ñëw chaque janvier lay ñu ñëw. clé yu bees yi na nga ko bàyyi waykat yi. lan fecc yu bees yi waykat yi ñoo koy génnee. yow loolu nag mooy problème bi ah waykat yi ñoo bëgg di way bëgg di créer fecc bi bëgg créer tëgg bi nan régler nag régler leen. ah doo créer. ah maa ngi créer man li may créer mooy spectacle laay créer man damay créer chorégraphe damay créer loo xam ne tey suba tubaab bi mën na ko gis xool ko bëgg ko bëgg Sénégal ndax li may créer. merci beaucoup xaay la ba